Ba euh, Mamadou wax na ko euh, abordé na question yu bëri mais aussi am na ay omissions euh, parmi ces omissions la question de l'hyperprésidentialisme ci campagne bi on vous a un peu entendu parler de la réhabilitation du poste de de, de vice-président quels vont être la, les, les rapports entre le premier ministre le président est-ce que le premier ministre va être renforcé est-ce que la présidence va fondre va fondre un peu. Euh, euh, c'est fait exprès wala euh, foofu tamit di ngeen fa créer ay concertation waaw di la je pense que débat discours bi boo ko dégloo quand même euh, c'est un discours très structuré boo xam ni le président a lancé les grands chantiers qui von l'occuper immédiatement mu nekk je pense ay chantier yoo xam ne ku ko déglu xam ni quand même euh, daray folklore nekku ci c'est vraiment aller au cœur des problèmes yi nga xam ni moom la ñu dund la peuple sénégalais dund ces cinq dernières années euh, boo jëlee réforme yi mu wax xam nga ñu ngi la doon wax ni la euh, la bonne gouvernance dafa essentielle mais gis nga abordé wu ko sous l'angle bi muy wax bonne gouvernance de fayonto reddition des comptes kan moo jëloon et cetera daf ko def vraiment de façon structurelle euh, indi ci ay innovation comme la protection des lanceurs d'alerte ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir administration yi te bu ñu gisee luubal wax ko tey gis nga ci ñu bëree bëree bëri bu paree dañ leen di dàq wala ñu sanctionné leen wala ñu mettre leen u frigo nga gis ni loolu am na solo euh, code électoral bi moo ñu naroon a yóbbee ab njombe boo xam ni en tout cas <clears throat> le processus électoral boo xam ni mënoon na yóbbu tey Sénégal su élection amul woon ba non mais ci processus bi de façon globale gis nga coowal DGE bi Ousmane Sonko di retirer ay fiches gis nga Sénat jox injonction euh, DGE finalement ñu dindi fa Sénat muy wane ni Sénat boobu quel que soit par ailleurs statut bu mu amoon jamono yooyu ñoom ñëpp assuré wuñu seen rôle ñu gis ni processus bu jaxasoo la ñu am DGE di ci dugg Sénat di ci dugg du ñu xam kan moo mën a jox kii injonction est-ce que kii bu ko joxee injonction articulation bi ak justice na la dem mu annoncé ni le processus le code électoral dañ koy xoolaat bu baax a baax a baax quand dans le sens de remplacer déjà la Sénat bi ñu am par une commission nationale indépendante parce que bu indépendante kooku mooy wane ni moom mën na organiser élection xam nga liñ dund conseil constitutionnel est-ce que conseil constitutionnel moo war a càmbar. candidature yi. parrainage question bu am solo la parce que après moom amul recours tey su doon une autorité bu mel ni CENI bi ñu wax moom mooy jël parce que c'est une autorité indépendante kooku ministère da ciy génne loxom ministère de l'intérieur da ciy génne loxom ci organisation ci. càmbar dossier yi. autonome ak indépendante. bokkuñu est lan la différence bi bari na. bu bu bu ñu foog ni bariwul parce que tout est dans la philosophie xam nga tey jii gis nga Sénat bi ni ko ni leen président jëlee foofu remplacer leen facilité avec la laquelle le président parce que jël nañ une mesure rek. mu jëlee leen. mais seen mandat dafa jeex aussi. no seen mandat dafa jeexoon yàgg na. yàgg na <laughs> yàgg na quand même bu mais je veux dire c'est pas seulement le statut ou l'appellation ce sont les prérogatives yu bees yi ñu leen jox tey bu ñu nee képp kuy déposer parrainage seni bi nga koy yóbbu ñoom ñoo koy càmbar ba pare. man lay jox exemple waxuma loolu mooy nekk le contenu dama lay jox juste ay pistes pour nga mën ko xam euh, su doon a namo kii recevoir candidature yi parce que du loolu conseil constitutionnel mu jël ab informaticien teg ko di jël benn candidature xool ñaata moo valable et cetera parce que une fois que conseil bi jël na décision baax ou bon amoo recours tey bu ko CENI bi CENI bi ñu bëgg a créer di càmbar loolu jël parrainage yi xool ñan ñoo matal parrainage ku bëgg a def recours nga def recours au niveau du. mais am na ñu ne c'est la DG moo ëpp compétence euh, pour mun a def càmbar boobu euh, ci biir processus bi am na ñu wax ne. Euh, contrôle parrainage yi DGE mi yor mécanisme bi yëpp moom lañ ko waroon a dénk. non DGE yorul mécanisme bi DGE dafay joxe fii si bu xasee joxe fiche yi DGE pare na ci amul yorul benn mécanisme conseil constitutionnel moom mooy centraliser li ci des yëpp donc pour ñu am loo xam ni amatul contestation boo créer CENI jox ko moyen yu bees moyen yu bees yoo xam ne ay prérogatives nouvelles. tey jii conseil constitutionnel dans sa dignité dignité fonction bi pour ñu préserver ko day nekk instance boo xam ne moo nekk en dernier recours mais lépp li nga xam ni moo ci des le fichier électoral les inscriptions yépp CENI bi nga xam ni c'est détaché de l'influence du gouvernement munoo ni DGE administration kese la ka fa nekk dañ koo nommé te ñu ko sant loolu lay def DGE génn ci joxe fiche su parrainage yoonam nekku ci toutes les compétences yi direction générale des élections am nga jox ko directement une CENI nga pare nag teg justice muy contrôler ku am problème ak CENI boobu parce que CENI boobu dootul jël même dans les modes de nomination il n'est pas dit que le président mooy nommé ñëpp loolu tamit day jeex parce que boo bëggee seni bu indépendante il faut nga nome leen il faut nga jox leen ay garanties supplémentaires ba nga xam ni lii ñu gis ay magistrats nga jëlee ko fële indi ko fii et cetera yooyu yëpp benn doute dootul am ni cette CENI elle est indépendante parce que daa am pouvoir propre yoo xamante ni dépendre tul ci. président de la république et son bon vouloir donc représentant acteurs yi nekk fii mu jël ay décision décision yoo xam ne mën nga ko contester devant la justice donc kooku c'est vraiment une réforme majeure parce que actuellement Sénat bi day superviser mais boo ko saisirul mosoo dégg Sénat à part li ñu koy saisir ah mu nekk koo xamante ni en amont day inter même s'il est au cœur du processus inscription électorale automatique ñi nga xam ne am nañ 18 ans kooku c'est une mesure presque de bon sens parce que inscrire ba pare ñu lay inscriraat kooku xam nañ ni c'est pas fiable te ñaata nit milliers de centaines de milliers de personnes ñoo mënoon nekk électeur avec ce mécanisme simple qui coûte pas cher qui coûte pas cher. ku ku am à partir du moment où am nga carte d'identité rek euh, am nga droit vous êtes dans le fichier. dans le fichier code électoral bi gis nañ problème yi ci am ak les articles 29 ak 30. code électoral c'est un code pour l'élection mais day servir dafa devenir un pendant du code pénal yow tey jii sa droit d'électeur code électoral moo la koy empêcher pas un juge est-ce que loolu dañuy bàyyi mu kon ne ñu ne la tel type de condamnation rek automatiquement dalay ñàkkloo say droit civique te juge prononcé wu ko te boo demee ci code bi aussi li lay ñàkkloo droit électoral notamment ñu ngi ko doon wax en matière de diffamation est-ce que nga diffamer nit ki c'est une affaire nga fay ko ay centaines de million ou quelque soit condamné nga ko ba en quoi kooku même pour une condamnation de deux trois mois fay nga ko se une affaire mais ça te fait perdre tes droits civiques pendant cinq ans est-ce que loolu c'est logique cinq ans nga ñàkk say droits civiques pour des affaires yoo xam ni parfois c'est pas nécessaire ñàkk loo nit ki droit civique dafa diis c'est un juge qui doit prendre cette décision loolu mooy li gën mais la condamnation ne doit pas xam nga c'est une peine accessoire quasiment le code électoral loolu tax koo jóg code électoral yooyu tax koo jóg di décider kan mooy nekk ci biir wala kan loolu code pénal moo ko war a régler pour toute condamnation c'est au juge de décider selon l'affaire est-ce que bii c'est une affaire infamante nécessitant nga ñàkk say droits civiques pendant une durée mais am na ñoo xam ne dañu ñàkk seen droits civiques ad vitam aeternam yow amoo réhabilitation code électoral du réhabilité kuñ condamné pour une pour un crime même bu purger penam condamnation bi demeure ad vitam aeternam donc yooyu ay question de fond la yoo xam ni war nañ ko mën a régler gis nga affaire euh, kii fiscale yi da ngay dem rek ñu jox la quitus fiscal qu'est-ce qui vérifie la réalité du quitus fiscal boo demee rek ñu jox la quitus amuñu la santé je mais c'est un global boo xam ne li ñu dund expérience négative yi ñu dund la question de la nationalité nan lañ koy prouver avant et pas le conseil di ko def a posteriori parce que beaucoup point sensible du code électoral c'est des c'est sur la base d'une déclaration vérification bi a posteriori la est-ce que sa patrimoine dañuy bàyyi ba nga nekk président ñu soog ko vérifier est-ce que war ñu def déclaration de patrimoine m mu bokk ci condition wu nga xam ni s'il y a forfaiture entre l'élection ak euh, le dépôt de candidature et la validation de la candidature mu mën a nekk une cause boo xam ni buñ ko amee leeral ko mu nekk inéligibilité mais supposons ñu am plus de 30 candidats à l'élection présidentielle vous pensez que on a le <clears throat> temps de mener des enquêtes pour vérifier le patrimoine de mener des enquêtes pour voir s'il peut avoir le, le quitus fiscal ou pas de mener des enquêtes pour euh, avoir une idée exacte de sa de sa nationalité mais yooyu yëpp moo tax ma ni la a dee une xam conseil constitutionnel amul nit ñi le conseil n'a pas les moyens et ne peut pas travailler dans le court temps koy jox pour déposer parce que à part période élection conseil constitutionnel day jël le processus après dafa am moment boo xam ni bu ñu déposer candidature yi ci la conseil bi soog a jël le processus mais avant euh, la xew fëleeg caisse des dépôts yooyu yooyu yëpp géré ko kan mooy joxe fiche de parrainage géré loolu ce partage là entre plusieurs autorités ki nekk une autorité dépendant de l'administration ki nekk une autorité plus ou moins autonome ak le conseil plus les cours d'appel articulation boobu yëpp gis nga conseil bi moo jël décision pour cette année ni tout ce qui touche le contentieux électoral maa ko jëlal sam bopp mais du du texte moo ko jox mu ne lépp luy décret bu ñu war a contester bu laal élection ci man lay ñëw même si c'est de la compétence normale de la cour suprême tey bu cour suprême dëgëroon y aurait un conflit dafa am non quand c'est une question de de quand c'est un contrôle de constitutionnalité conseil constitutionnel moom moo am la prérogative la cour suprême juge des questions d'abus d'autorité non décret bi ñu jël reporter ay élection wala décret bi communiqué bi conseil bi génn ni d'accord na ak président décision bi mu jël ci élection yi xam nga conseil da koo fixé woon le 31 mars président def ko 24 ñii dem saisir corps conseil constitutionnel cour suprême ni ko amuñu droit communiqué di dindi di dëggal ak lu président wax ak yooyu mu am problème c'est un décret. parce que le conseil constitutionnel s'est gouré euh, le conseil constitutionnel n'a pas la prérogative de fixer le calendrier électoral. Non, de convoquer non, ou de fixer non, la date de l'élection. non non non loolu président de la République avec ses services. déedéet moom am prérogative boobu ah si. il y a de boo duggee ci conseil ci constitution bi. di nga fekk beaucoup d'exemples yoo xam ni c'est le conseil qui fixe la date de l'élection en cas de décès d'un tel si si si en cas de décès d'un <laughs> candidat c'est le conseil qui fixe c'est le président qui convoque le corps électoral qui sort un décret pour fixer la date de l'élection dafa nekk situation exceptionnelle ah. le conseil dafa ni dañoo nekk dans une situation exceptionnelle boo xam ni un report sur aucune base juridique moo ko créé loolu c'est exceptionnel mais dama lay wax rek de façon ramassée toutes les questions yi ñu vivre nii dañ ko war a régler dans le nouveau code électoral ba nga xam ne lii du xewati et notamment la CENI léegi ma ñëw juste ci modernisation des partis politiques la loi bi gère parti politique elle date de 1976 76 il y a une autre loi de bu préciser sur l'article cinq mooy comment dissoudre bu ñëw 89 1989 et c'est un texte très court très court qui ne tient pas compte de la réalité def nañ révision constitutionnelle indi le statut de l'opposition foog ñu matérialiser ko donc le financement des partis changement loi sur les partis politiques pour rationaliser ko loolu yëpp c'est des chantiers énormes qui méritent conteste euh, ñu def dialogue bii ngay wax nii c'est pas juste de nouveau dialogue parce que dialogue yële c'était pour régler des questions ponctuelles à caractère électoraliste li c'est vraiment toutes les expériences malheureuses et négatives qu'on a vécues plonger le Sénégal dans des vers des lendemains incertains ñu mettre ko table la rasa réformer avec la raison et non avec le cœur parce que j'ai l'impression que mauvaise expérience yi ngi da ngeen ñu fi nar a indil euh, un processus électoral taillé sur mesure une justice taillée sur mesure euh, basée sur vos expériences c'est-à-dire non euh, l'expérience du peuple réforme yi dafa war a consolidante ça ah, ça doit être des réformes pour l'avenir et non Euh, pour euh, nu mu tudd mettre vous mettre du baume au cœur. non non non non mais xam nga ñun sommes defar réforme yi ñu dund ak conseil constitutionnel c'est pas taillé <laughs> sur mesure c'est le peuple qui a expérimenté négativement ce report qui aurait pu créer des situations d'instabilité pour le Sénégal ko conseil moo ko wax nee na pour la sécurité juridique am na ay décisions yu président jël yoo xam ne bu ñu defee réforme bi président du ko mën a jëlati di reporter ay élections sur la base de on ne sait quelle considération imbrication bi nga xam ni ak euh, parlement ñeme jëloon na ko ba xaw a dugg ci compétence yooyu yëpp dañ koy càmbar mais même sur la justice li nga jàpp ni ce son encore une fois euh, suñuy expérience lañ bëgg a solder c'est pas du tout ça pour euh, da ngay jël de façon globale yow boo demoon justice tey ci ngay soog a comprendre ni c'est pas juste une expérience négative le rôle du procureur dans le processus dans la procédure pénale accusé bi amul benn droit procureur à tous les droits il faut ñu rééquilibrer loolu gis nga procureur bu ko neexee ñëw même phase d'enquête dégloo guñ la ba xam ndax yaa dem am na article boo xam ne bu ko visé ay article directement da ngay dem mandat dépp loolu mun continuer yow nga dem chambre d'acc mu jël ordonnance de renvoi ñu ne dañ lay yóbbu en juridiction de jugement ñu ne la yow yow yow yow accusé bi amoo droit def appel c'est le procureur encore une fois moo am daf moo am droit def appel suñ nee dañ lay def liberté provisoire mu opposé wu ñu ne la mesure est suspendue yooyu ce n'est pas ñu ñoo ko vivre c'est une nécessaire ñu rééquilibrer les institutions te ñett yi bañ la nax wax nañ la création d'un juge de la liberté la détention mais il faut ñu penser waat la procédure pénale il faut dans les débats mun nañ poser la question ba daaneel foofu juste euh, est-ce que les procureurs est-ce que ñu changer le def ñaari statut pour les procureurs ak pour les juges d'instruction on va y revenir un statut plus protecteur moo tax man ni la du ay chantier yu ndaw li mu wax nii c'est vraiment pas de petits chantiers wala des chantiers taillés sur mesure nga xam ni c'est pour nous à partir de nos expériences vécues ñu en partie parti politique de par la répression connue c'est vraiment pour l'avenir la stabilité du Merci. pays euh,